gars démb vidéo bi ma def dafa am ñu ma envoyé message naan ma ngir yàlla c'est la société tradition la mbay peex jaari ñu yàgg ci affaire bi loolu ambiance Sénégal mooy dundal Sénégal barke yombal xiyam du ñu seetaan ngeen mar Basirou Diomaye mar ngeen Senghor mar Abdou Diouf mar Abdoulaye Wade lekkali ko Macky Sall Basirou Diomaye mayewuñ ci lu toll ci taral ko tal ay nit Basirou amul faqiir la Sonko amul faqiir la barki Bassirou Diomaye Faye këram bor la fayagu ko Sonko yorul El yoruñu ay appartement bi lex yoruñu yoruñu mayewuñ ñu dërëm gis lii lii moo financé parti bi diaspora bi jàpp ci quatre cent soixante quinze millions ñu te dajale suñu un million Kër Massar ak ay Yoof ak Malika financé parti bi parce que mu yaakaar ci daayra mu dimbali la wala ci dara yoruñu mënuñoo ñëw di xeex système bi ba yegg fii nag o oh, non non ah non di delluwaat ca lee non ñun suñu tànk lañ ciy xar mënuñu xeex financer suñu parti ba yegg si fii diaspora bi mooy mottali li ci des xaalis bi matul woon leb nañ banque yëgoo leen woon loolu dañoo leb banque pour jënd essence ak gasoil Mimi Touré xaalisam yëpp da ko def ci campagne bi ñoom ñëpp yoruñu dërëm billaahi dañoo yorul billaahi yoruñu barki yàlla soxorul mais dañoo yorul dañoo yorul xamoo leen ni El Malick am na problème bu facture ndox ma yeggee leen ko ah euh, ki nekk fii euh, xaw ma nan Sané ah Jame saane mi nekk Parcelles Assainies dafa luwee ba léegi billaahi yoruñu ma euh, Pape Anne Pape Anne yaa oustaz bi yéen ñaar nii oh lii ah oui lii lii lii ah lii amatul de bien ren amul ku ci profito wul dem Makka ci nguur Macky Sall billahi boo dem Makka sa do mën a yóbbu ku ci profito wul dem Makka de ci nguuru Macky Sall boo demaatee Makka sa doo mën a jabaru usman Sonko yi ak jabaru basiru yi ñu ay billet Makka yu ñuy maye dimbali leen ñu rek ko leen ah, ye ñaar ñi ay soxna ah, ah, ajaratu nangam dimbal leen ñu ci Lamine Samba oh oh am ngay gis Lamine billahi dimbali ñu oh Lamine Samba te min gi na fo tambale do fa taxaw xamoo lamin xamoo Jamil Sané xamoo sa Top xamoo Bilal jaata xamoo Citizen xamoo leen xamoo ci benn DG bu nekk passif xamoo ci kenn ah dimbali ñu rek tay Sarr kenn xamu ko ngir ngir yàlla ah dimbali ñu lamin Samba yow rek lay gëna a su wop wop wop lamin Samba yow koo tuddu ko di ko dimbali ñu rek ngeen bañu ñu defar réew mi fi mu toll nii nag liggéey jot na jot liggéey wàcc tëdd ñu defar Sénégal